asalaamaaleykum dal leen ak jàmm mbokki internet yi safoo di setaan Buzz M TV dal leen ak jàmm mbirum Ousmane Sonko ak ay avocat wam ñoom nag ñu ngay xeex bu metti ak avocat yu nguur gi li ko waral nag mooy que ne nag avocat yi Ousmane Sonko yi dañoo daal di bindoon ab recours nag pour ñu àtte kii di Ousmane Sonko fële sa CEDEAO loolu mel nag avocat yi nguur gi nag ñoom dañoo bëggoon a gàntal boobee audience ba tax ñuy sàkku ñu daal di koy dàqal ndax kat nag mbirum coupure courant yoo xam ne daal dafay faral di am lu nu mel tax na sax ba Juan Branco daal di génn moom daal di ay révélation ay leeram di wax kat nag Ousmane Sonko dañ koy àtte mbir mi dafa war a leer dañ ko war a delloo si liste bi moom Ousmane Sonko dafa war a bokk si élection yi ni mel lu ni mel nag daal moo waral. ba taxa kii di Maître Ciré Dolly tamit génn eh, gën see def ay leer mu nekk loo xam ne doy na waar loolu ndax kii di Ousmane Sonko dinañ ko dugalaat si liste bi am jet avocat yam ak avocat yi nguur nag jamono ji ñoo war la jàmmaarloo si boobee audience dinañ leen toppal mbir mi ba mu gën a leer jaa ngeen